asalaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna amaat mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci Lutte Sénégal TV comme ni ñu koy defee chaque jour rek di leen toppal lamb di leen toppal champion yi fu ñu nekk rek ñu fekk leen fa dekk leen suñu micro waxtaan ak moom ñu waral tey nag ñu waat fi nga xam mooy euh, parcelle c'est si le grand champion muy Blindé bu Grand Médina seet si ko nag fa seen waxtaan ak moom ku ne xam ne nag fan yi coow yi xawoon na bëri trop ci combat bi nga xam te ne bii waroon na ko bëre diggante ak ki nga xam te mooy Zambala mais di wax gars rek nañ profité di wéy di abonné di bës cloche notification yi di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel ñu leen ko jox comme ni ngeen ko bëggee dañuy nuyu Blindé nag bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre su ko defee ñu ñëw ci bi Blindé maa ngi lay nuyu de la ziar. auzu ah, billaahi mina sheytaani rajiim ba ñu yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñuy supporters waaw di santaat yàlla bu baax a baax di ñaanal sama ñaari waajur fu ñu nekk gënal leen fu ñu jógee ak mbooloo bu ñu fa fekk di ñaanal ñu nekk si lalu hôpital bi yàlla fëgg seen ñuy tëj si kaso bi di ñaana ñaanal tamit yàlla euh, dindi leen si lu ñu suñu si la ñu nekk noonu bon di nuyuwaat téléspectateurs yi di lay nuyuwaat yow ceer bu baax a baax di nuyu sama xarit Nguet Dione di nuyu waa parcelle 1 ba 26 waxatuma nag 17 ak unité 16 di jégaluwaat ñëpp waaw di nuyu ñëpp daal. acca am na solo di nuyu bu baax a baax champion bi ñu fekk muy euh, ngel Dione Nguet Dione bu Ngoundiane ah Nguet la grand champion daa mel léegi xaw ma daa bàyyi bëri xaw ma qu'est-ce qu'il a wala. waaw. ngel moom mu ngi si lu mu war a nekk rek waaw xam nga làmb ji léegi ku ma am ndey la ak ku ma amul ndey waaw làmb ji lu muy doxee kenn comprendre tout làmb ji lu ma doon wax rek saa yi ma ko waxee gars yi mere ma mooy làmb du sport showbiz la waaw showbiz la parce que mënu ma comprendre ku mel ni ngel joon ak lu mu def si làmb nekk dajale ay douze combats am dix victoires am di di di toj si simple bi te su ñëwee mu neex su bëree mu neex su fekkee mu neex bon xam nga ngay toog boobu ba léegi mënul am combat kenn mënul ko tëgg yaa ngi dégg est si lan lañ ko teg dañuy teg ay adv ay promoteur dañuy ñëw taxaw sax bëgg ko tëggal combat ku ñu seeti mu nga bañ kon làmb nekkatul sport foofu laay waxee man chaque fois daa am lu may waxee samay wax dama am ma koy teg su ma dindee loo wax dama fay teg wax am na solo dañuy ñëw ci li nga xam te mooy ci actualité bi Blindé tey sa diggante ak Zambala Euh, di nuyu suñ papa yi nga xam te ñoo ko tëggoon muy ménager yi regroupement ménager yi jël nu yóbbi teg ko ci loxo suñu papa père Bourkhane Wade combat bi taxawal nañ ko njëkkoon ko jàpp suma juumalee le 21 mai sa diggante ak euh, Zambala ñu dem ba ci biir problème mu date am ak yëngu dëkk bi ñu ko euh, pour jàpp ko li nga xam ne mooy le 5 août mais lu jiitu ci diggante bi da nga fi am combat MMA dem foofee di ko bëre MMA bi ndax mën nga ma cee dikkalaat naka la taxawee ak noo ko préparé ak noo perte combat bi. waaw ginnaaw loolu nag dañuy nuyu groupe manager yëpp manager yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen waxta di leen wax ni carrément ñu bëggewuñu ko woon ni bon kon malentendu am na te kenn ku nekk waroon nga comprendre sa morom beneen bi si topp mooy damay dégg euh, CNG nee na ma aj na ma deux ans te aj deux ans bi ñu ma aj deux ans. Euh, aj deux ans bi tey sa combat MMA bi ndax nga ko préparé ak noxu ñàkkee nga ñëwaatal ma ci combat waaw combat MMA bi nu ma ko préparé préparé naa ko lu ma ko war a préparé def naa ko lu ma ko war a defee man soo xoolee sax lu tax ma ñàkk ko sax làmb ji si la bokk. voilà si la bokk. waaw parce que am nga ñaari forme yu bokkul. ñaari forme yi bokkul. te Zambala combat bi daa nekkoon combat bu ma ñor. daa nekkoon combat bu ma respecté. ba ma jël si poids boo xamante ni pénalisé na ma. ma jël si poids boo xamante ni. tere na ma sama rapide. ma ma ma ma am rapidité si biir combat bi am endurance am cardio parce que li ma toll si làmb ji waroon naa gën a sekkee noonu waroon naa gën a wàññeeku noonu wante lu waral loolu mooy combat la cinq bi ma si boole. comprendre nga bëgguma jógee foofu ñëw faible. looloo waral ngay gis yenn mbër yi suñuy ñëwee si arène bi dañuy toll leen ne wante suñu demee dañuy yataat seen bopp. liggéeyaat ba am benn forme bi ak benn kii bi forme boobu mënul ñëw si làmb. su ñëwee si làmb rek da ngay faible. loolu tamit bokk na si tamit mhm. li ma gën a pénaliser wante sant yàlla liggéey nañ ñu war a liggéey mhm. def nañ lu ñu war a def ñun ay xale lañ dañoo nekk si MMA mhm. te lu ñu desee dafa bëri waaw te li te lii may wax nii dama ko gëm te MMA incha allah rabi dinaa si doon champion ndax dama ko gëm MMA bi su ma juumalee mi ngi nekkoon vingt 28 juillet ah. euh, nga bëre ko ci mais ci biir bëre bi Belene dafa amoon avantage trop ba nekkoon ci position bu baax mais ci dernier moment ci la jël coup perdu coup bu nga xamante ne bii ci la yàq ci moo yàq combat waaw si biir bërëb bi quatre minutes lañ combat ñu bëri xamuñu loolu ay am ay séquences yu ñu dagg rek dugal ko a ñun quatre minutes lañ koo mbaa quatre minutes yu ñu combat yëpp maa ngi moom yaa ngi may dégg est que dafa doon loo xamante ni comprendre dafa doon loo loo xamante ni oh bon ñu liggéey lu metti maa ngi moom xeex xeex bu metti moom ñaari coup moom moo si dal waaw parce que soo gisee lu tax gars yi doon am occasion ndax bëri naa moom daan ko ba ma koy daan damaa kott ba mu ma kottee kott bi yàgg lool ma résister ko soo xoolee si biir combat bi damaa toog samp sama bopp si suuf prier si kaw pour mun a kott bi mën a dañ mun a déet bàyyi kott bi da ba mu kottee nag moo xam ne fa carrément fii jekku na ma si laa ko commencé dóor ay hyperclis biir mu ko dóoree ay hyperclis bi la bàyyi kott bi ma daw génn foofu moment boobu mënu ma yëg si koom parce que daam ay difficulté yi moo jóge woon ci ay jafe-jafe yi mu jóge woon damay dem reprendre sama bopp mm-hmm. te si la jógee mu dóor ko ku percule mm-hmm. mu jóg mu dóor ko direct bu dal de direct bi ba mu ko dóoree avant sama loxo di dem fekk moom tourné na dóor ma conc comprendre ku hasard laa jël ku boo xamante man mënuma si dara mun na mun na gañe ku ne mm-hmm. loolu moo ma perte loo sama combat comprendre nga waaw santaat yàlla rek xam ne ñun ay xale lañ te si lu ñu nekk nii non si kanam tuuti gars yi dinañ seen bët xool lu ñu gëm la ak loo xamante dañ koy jàng. Mm. te bu ma tëb rek dugg si MMA. ba léegi maa ngi koy jàng. waa voilà. am na solo bu ñu ci li nga xam te mooy ci MMA bi euh, dégg nga kàddu yi nga xam te moom la ci leeral mais euh, ci la cinq bi nga ñibbi si gars yi di xaar belende pour sa diggante ak Zambala pour le 5 août ménager tëgg ko ci jour ci jour combat bi ñu toog di xaar gisuñu Blindé gisuñu Zambala lan moo waral Blindé bi mu jógee ci MMA perte combat rek war a ñëw bëre la 5 ñëwul lan mooy problème bi ñi nga xam te xamuñu. ñu bëgg Blindé indi ci ay leeral ndaka lay dem <laughs> man lu ma am làmb moo ma ko may lu ma mën làmb tax ma mën ko man awma lu dul làmb wax bi moo fi nekkee kenn ku ne di wax ceer man ba ma bëree la vingt est-ce que xam nga kañ laa dugg ci Sénégal dama bëre le 28 ah. maa ngi génn sama hôtel le 29 maa ngi départ presque une heure du matin ma yegg si Sénégal le euh, le trente si six heures du matin bi six heures du matin laa yegg si fii defuma fee fanaanuma fa benn fan xanaa jour combat bi ma fanaan fanaan xëy neuf heures ñibbisi vingt une heures laa génn sama hôtel ñibbisi ndax lan fonk làmb ji mm-hmm. respecté manager yi mm-hmm. ba pare respecté CNG ba xam ne carrément lu ma fu ma mënta dem Sénégal laa am kon seni mbir du yàqu si man te managère suñ ma déggee dinañ xam ne li may wax lu wér la ndax man ba may dem signature ba si guddi si laa waroon dem ma ñëw signature ba parce que dañ ma fonk dama leen waaw dañ ma fonk dama leen di respecté te Thier daa am loo xamante ni bokku si làmb dafa am loo xamante ni bokku si sportif CNG man dama aj deux ans deux ans yoo xamante mënu la wax fenn fu mu ko teg laaj ma lu tax Bombardier am na fi combat MMA am fi combat arène mu dem yàlla def mu ñàkk MMA bi ñëw bëri fii te kenn aju rëg-rëg am na fi combat MMA dem ñëw bëri arène te kenn aju. mais dañoo ñëw bëri si mais bi leen di ñëwul. ñëw rek foofu laa ñëw dinaa leeral lépp. Siteu am na ko fi même pour te pourquoi Blindé am loolu ñu aj ko man avant may dem di signer contrat fii fekk na man signé naa sama contrat ba ma jógee Afrique du Sud takk xam nga boobu maa ngi war a bëree ngeer le 3 novembre ba ma bëree le 3 novembre foofu dama ñëw fii bëri ngeer le 3 décembre kon war nga xam ni kon man respecté naa gars ba ma ñëwee takk si mois weer yooyu noonu deux mois yooyu rek ah. la xaw ma un mois deux mois yooyu la sama combat taxaw mm-hmm. ma signé trois combats laa signé MMA bi mm-hmm. ma koy préparer ba koy préparé ñu jàpp euh, date bi presque ay quatre mois xaw ma cinq mois mm-hmm. kon xam nga ni loolu moo jiitu làmb ji téeméer junni yoon te CNG su ma wooyee ba ñu toog waxtaan yaa ngi dégg ma wax leen ñu ne ma indil ay preuve ma génne samay contrat wal leen ñu xam ni combat arène MMA bi moo njëkk taxaw léegi ba mu taxawee ñu ne ma ñu taxawal sama combat manaat zeer yi ne ma yàgg Zambala yéen a bëri Abdoulahat moom moo woo taxaw ko ba mu taxawee ñu ne ma la 21 di ngeen bëri fa ngeen di bëree ñu ne Ibamar yaa ngi may dégg léegi ma ne ko man am naa combat MMA ante bokkuñu jegewante ma am distance de mois xaw ma trois mois sama combat MMA ak arène bi préparé wu préparé desul lu dul semaine bi ñu war a bëri ñu woo ñu ne ñu Iba Mar kenn tijjeegu ko nangam nangam ne ma comprendre te man maa ngi amoon sama datu ma léegi mën na la li ñuy def ñu ne ñu ngi wut dat sóoru faal ma déggante ma mu a ñu ngi wut dat dinañ fexe ba ngeen bëri ñu jékki-jékki sóoru faal jékki-jékki wooma na ma gars yi am nañ date ma ne ko kañ mu ne ma la 5 août la 5 août ngay bëre ma xool man maa ngi bëre war a combat la 28 juillet léegi yow décalage bu ma amoon. ñoom ñoom ñoom ñoo pousse seen làmb benn. première fois bi contrat bee laa njëkk signé troisième fois bi man bugguma yàq seen làmb ndax samay manager gis naa effort yu ñuy def te samay papa te su ma neexoon ma ne duma ma bëre la cinq août yaa ngi may dégg est ante que ñu làmb ji du yàqu si man ma ma wax leen lu leer man na leen la 28 juillet damay dem MMA su ma demee ba ñëw damay bëri seen làmb ji jour bu mu war a dem daana toog deux jours ñu woo ma ne ma signature bi samedi la ma ne leen kañ samedi ñu naan ma ne ma samedi damaa xaw a jàpp de mu ne ma samedi la de ma leen dinaa def tuuba ñëw ma dem si signature bi li ma fa war lépp ma def ma ñëw dem sama MMA. MMA ba pare la le 28 le 29 ma départ ma yegg si fii la trent nekk Malika nekk Malika woo Sóoru Fall. dama bëgg gars yi déglu ma ko wax ñun du ñu ay ñun du ay du ay nit yoo xam du ñu ay baadoo la. te ku xam Belende dëgg dëgg dëgg xam ne amul lu muy ragal si làmb aw ma lu may ragal si làmb man aw ma lu may tiit si làmb ndax ñun ñu ngi bëgg a yàgg si làmb ma ñëw woo Sóoru Fall. te àdduna bi yéen ñii nekk si làmb yëpp xam ngeen ni nouvel ordre dafa wàccoon xam ngeen ni carrément programme yëpp lañ ajoon muy làmb ak muy lépp lañuy ajoon ku la ne aju ñu la programme yi dañuy wax lu la ñu ne lépp lañ ajoon yeneen ni fii xam ngeen si dara ma jàpp sama open press de deux ma ñëw ma woo Sour Fall mu ne ma CNG la ñuy déglu yaa ngi ma jàpp sama open presse de 2 ba lundi ma woowaat ko mu a ma CNG la ñuy déglu bële te CNG dem na Congo. CNG amul sax jotu mbër yi. dem nañ Congo ñoom ñëpp dem nañ Congo. yaa ngi dégg yóbbu ji ay mbër. xam nga ma la est-ce que dama lay wax ni ñun dañ tooñ. ñun maanaam boog lu ma mën a jàpp mooy tooñ. parce que dafa am ñaari chose ñu ne si ñun ak managers yi. mbër yi la ak managers yi. mbër yi ak manager yi. ñu mm-hmm. ñu njëkk tooñ mooy CNG moo ñu war a àtte. wante mm-hmm. ñoom ñoo ñu appuyé ñoom ñoo leen appuyé parce que man mënu ma mm-hmm. nga ne nouvelle heure wàcc na yaa ngi dégg est-ce ñëpp la jàmbaar. la 30 la waroon bëre. ay programme amul. am na bu waroon am dimanche bi amul. yaa ngi dégg est que ñoom comme waa jàmbaar ñoo mën a jàpp seen date ba jeudi. ñu may leen 5 jours 7 jours. ñu mun a programme war yeneen bëri waxtuma ñun ñu waroon bëri la cinq léegi mu ne ma mu ma CNG lañ dégg ma annulé sama open ma annulé sama open ma xam ne làmb ji mënatul am si diggante bi parce que ban ba léegi waxuñu ma lu leer. kon yow a bëri bëri la 5 mais la 2 ba léegi xamoo ko sax di nga bëreem de. dinaa bëri wala du yaa ngi may dégg est-ce que après nag la ñëpp a ne làmb am làmb ji du am. Mhm. yaa ngi dégg parce dañ koy puus ñoom xaw ma la lañ def ba jàpp date bi la 5 bi ñu maintenir ko même date bi la 5 bi suñ ko maintenir daa am ñu ñu ko sékkal ñu jéem a waxtaan ak ñoom ñoom suñu taxoon appui ne seen ñu puus làmb ji ndax am na wala dañ koy def wante dafa fekk ñoom ñu génn seen làmb dañuy wax dëgg rek te yàlla tax léegi nag si lañ ñëwee ñu woo ma jeudi si ay 2 heures presse jeudi lañ ma woo Sourou Fall. waa la ma woo man na ma jékki-jékki rek suuru faal na ma baa xam ngeen dangay ngay bëre ma ne ko kañ mën ne ma la cinq bi ah gars yi wax annulé wuñu ko de ma ne ko sóoru faal mu na ma ah. mën ne ko ñun du ñu ay ay mbëru mbapat sax mbëru mbapat sax suy bëre ji day waajal day préparé waxtuma nag koo xamante ni Blindé ak Zambala mhm. combat bi ñëpp soxla mhm. mu mu nekk suñu buntu yoon ma ak moom mhm. mun am loo xamante ni maa ngi moom dañ ko war a jëflante si biir géew bi am loo xamante dañu war a joxe ba ñëpp a xam ni carrément ñi ay xale lañ te lekk nañ avance yaa ngi may dégg est-ce nga tëb tëb rek ñëw ne ma ginnaaw suba ngay bëri ma ne ko sóor mu naa ma ne ko man wax dëgg yàlla bañu ma bëri su ma sañoon léegi ma ñëw bëri mhm. te daa am ñoo xam ne ñoo ngànk làmb su fekkoon bàyyi leen di wax ay bu leen déglu ñu nekk seen ginnaaw parce que ñu nekk seen gin suñ ginnaaw ñoo tax ngeen ñuy tëggal mhm. ñu ne suñu ginnaaw di ñu jàppale di daw suñu ginnaaw ñoo tax ngeen di génnee seen alal di koy def si ñun parce que yéen a ngi siy xool intérêt tëgaloo leen kenn su loo xamante du leen indil kenn amul kon bàyyi leen di wax bu leen déglu ñu ne suñu ginnaaw ñuy dem stade kenn topp ñu doo leen ñu tëggal wala ñoo xamante ne ñooy génne seen alal di def su ñun déggoo ñun ak ñoom te defatuñ ko su ñun est-ce que ngeen ñu tëggal nañ bàyyi di wax loolu nañu respecté nit yi waa ñu arrêté li ñuy def léegi ñoom ñu jàpp ko mooy Blindé si laa ñëwee moo ma ma ma ne ko man bañu ma bëri wante man ñi ma ŋànk nee nañ du ma bëri ji parce que mënu ma dem bëri ji mënuñuy toog ba heure bi combat combat bi xam nga fan combat bi amul promotion te loolu yëpp dañ ko muñ combat bi amul benn visibilité te loolu yëpp dañ ko muñ yaa ngi dégg est-ce que ci combat blindé ak Zambala bu toll nii maanaam boog lu ma la bëgg a wax nga dégg ko manager yi taluñu woon ñoom ñu ngi xool li seen bis li ñu gañee ñun tam ñu ngi xool ñun suñu bis nu ñu réussir dafa am ñaari cause waa nañu wax dëgg te yàlla tax te yow voilà parce que fayu ñun lu tax ñu mën a sacrifice suñu bopp ñun ñoom xam nañ bu baax li ñuy wax ñoom fayu lu tax ñun ñu mën a sacrifice suñu bopp xam ma la ba di ñëw di asaaloo suñu bopp beneen bi si topp mooy Zambala laay waxal. mais avant Zambala nee nañ Belende magam moo ni ko soo soo bëree ma bàyyi la àdduna ak nañ bàyyi di wax magam nee na moo bëri man awma lu dul samay mag. samay mag su ma waxoon bàyyi làmb léegi-léegi ma bàyyi te bàyyi làmb laa gën a jege sax te bëre làmb. mais tamit say ñoom nekkul ñoo signé contrat bi. même suñu signé wu contrat preuve la fi wax lépp. te xam nga ni ko Blindé say ay magam ñoo nekk si dëgg. maanaam bu ñu xool ni carrément da nga war a bëri ji rek da bëri ji. kon euh, toll ci niveau bi di di bëri combat trois jours. maanaam boog dafa am loo xamante ni nekkatul maa koy jugé. dafa am loo xam dañ ko wax. ñu wax ko fii ne ko nit yi jugé. yaa ngi dégg est-ce li ma wax nii yëpp yëpp yëpp nañ ko jugé nga xool ndax ay magam ñoo nekk si dëgg wala ay Blindé moo nekk si dëgg loolu lii ñu def ñu ñun ñi maag duñ ko def Balla Gaye duñ ko def Gris Bordeaux Gris Bordeaux combat ama ah, xam nga lu tax mu yàqu deux mois lañ ko jàppal mu ne dafa jege kon bu ñu gis ni ñooñu ay mbër lañ ñooñu ay mbër lañ dañuy takk ngeem ñuy takk ngeem lu ñuy bëri si géew bi loolu la ñuy bëri si géew bi amaan nañ sax ñun lu ñuy mobiliser sax ñoom duñ ko mobiliser kon nañ bàyyi nañ arrêté ñu respecté ñu quoi ñu bàyyi si ñuy def ba pare may wax ñu ne dañ ma aj deux ans parce que damaa dem MMA ji waruma woon signé fii contrat signé fee contrat te man ma signé fee contrat bu yàgg léegi fu la nga njëkk signé contrat ñëw fi pour war a bëre la cinq léegi tey bi nga déggee ñu ne euh, Blindé aj nañ ko deux ans lépp lu joxoon euh, xaalis ci ménager da koy delloowaat loolu yow après bi nga ko déggee noo ko yëgee dama reytaan damaa xam ne bi dafa cuune ah, damaa xam ne CNG dafa cuune hmm. parce que xam la daa ma ne CNG dafa cuune man Blindé su génnee fii dem bëri ci nekk lutteur yaa ngi dégg est di yóbbu drapeau Sénégal mm-hmm. yaa ngi dégg ba pare su duggee di combat ñëpp dañuy wax leader sénégalais maanaam boobu mëru sénégalais la mm-hmm. lamb ji mënu si génn ñun tuuru làmb daam fu ñu ko yóbbu mm-hmm. ba eh, ba tubaab yi képp kuy takk ngemb sax dañ lay sóoraale xam ne ñii sénégalais lañ dañoo mën a bëri ku si mel ni rëg-rëg lu mu def ku si mel ni bombardier ku si mel ni ñoom si tey lu ñuy def ñun dañu war a dooleel wante ñoom waruñu dama suñ tànk yaa ngi may dégg est-ce que te ñëwee tamit dañuy wàcc si takk di préparer pour duggaat si làmb ji loolu rek fierté CNG la loolu rek mu ngi mu ngi def loo xamante ni si làmb lu sombali boo xamante ni ñoom xamuñu ko loolu rek mun na indi ay sponsor yoo xam xamante si biir làmb ñoom xamuñ ko ndax tubaab bi ñu ngi ñu bàyyi xel te làmb lu tax mënul avancer amul organisation loolu tax ma ne la chaque jour ma ne la làmb du sport soo xoolee boxe bi ak boxe anglais ak king boxe te ñoo bokk benn fédération loolu tax comprendre nga ñuy am link kon MMA bi ngay gis nii si si CNG dimbalee leader yi si ne man soxoruma damay wax leader yi si ne làmb day gën a sori parce que dañuy ñëw fii di tànn ay nit di leen yóbbu te ñun lu ñu fa gagné dañ ko indiwaat si làmb dañuy dem ba CNG day taxawul benn équipe boo xamante ni yaa ngi dégg est moom da siy am chantage CNG dafa cuune. am na solo léegi euh, deux ans yooyu noo ko jàngatee ak reliquat bi. non deux ans li ma ko jàngatee mooy metti na ma méttiwu parce que lu tax ma ne metti na ma méttiwu parce que mënu ma comprendre tooñu ma li ma fi wax lépp ñëpp dégg nañ ko mm-hmm. ñu jékki-jékki def lu leen neex ndax ku am ndey ak ku amul baay yaa ngi dégg est jël ko. loolu dama si loolu damay métti lu beneen bi lu tax ma ne méttiwuma mooy man xale laa suñ ma àndee deux ans loolu mooy génnee nañ leen si làmb bàyyi maa ngi dégg Zambala di wax na Blindé suñ koy aj suy am moom pare woon pour bëre moom muy am contrat fii dem di am contrat fële ma njëkkewuma ko fi du ma ko mujjee dama bëgg moom mu xam loolu te maa ngi dégg tamit mu ne ay man pare woon pour bëre Zambala dama bëgg mu xam ne su wagaa benn maa ko gën a xasaw juróom-ñaari yoon benn moom su fekkee dafa waga man dama xasaw xunn benn deuxième bi su fekkoon làmb ji laa la wax si jëm boppam am na ñu teg ko si yoon Zambala du pare pour ñëw bëri si parce que moom moo njëkk taxaw ne manager yi bëriwul waaw ñëpp di dégg manager yeeg ñëpp xam nañu baax li may wax ba Abdou Lahat mer si signature bi di koy wax li mu koy wax Abdou Lahat moo la gënoon xam ni. ak manager yaa ngi de Zambala dina dugal médical looloo tax mu ne ay ñun suñu combat médical yàqu dafa lekk avance ba pare te gëmu ko Zambala moo la gënoon xam ni. mais mais moo la gënoon xam ni am na combat. mais moom ci biir communication bi ñu ko déggee mooy que blessé blessure da ko daboon ci wàccaay bi. man mi ñu kawoo nag ma forcé ne damay bari man dama dañ ma kawoo gars yi wax ma ne de mun naa bëri damay bari ndax kawuñ ma kaw bu muy xamee kaw dëggu laa def parce que maa ngi ànd ak sama xel normalement su fekkoon CNG su du cuune sax laal man warutuma waruma bëri dama war a toog un mois quinze jours soo ko bëri ak sport bu mu munta doon bokk nag bokkul ak ñàkk bokk yëpp man waruma combat dama war a toog un mois quinze jours bëggayuma ko noonu kon ku dem ba insister ne day bëri kooku lijjantiwul CNG lijjantiwul stafurla di jégalu lijjantiwuma euh, Zambala yaa ngi dégg dégg naa ko tam mu ne ay lu ma def daanu moo ma moo ma ëppale si lenn lépp Zambala dafa réeri mbir xamuma tax balaa mu ma doon xam li dal bébé bilaam ñu bëre ba pare yaa ngi dégg est muy xool muy soog a comprendre ba su ba su ba su ñëwati si làmb sax pour mu duggati si biir géew bëri dina doon problème si moom waaw sur tous les plans nag maa ko si gën a xasaw billaahi wallaahi tallaahi laa lay waatal. yaa ngi may dégg su fekkee xasaw maa ko gën a xasaw kon na bàyyi na arrêté ñu bàyyi li ñuy def man du ma ragal te yaakaaruma kenn ku dul yàlla làmb ñi nag daa am ku ma am ndey am ku ma amul ndey nit nit nit laa la wax def na fi lu ne wengi ñu baal ko mu ñëwaat ci làmb nit def na fi lu gën a garaaw lii du ma tudd ay tur te kenn te li am si làmb laay wax def nañ fi defati fi def di def fi defati te xoolal dañ leen baal ñaana la intervention ñu ñëwaat dugg si biir làmb. léegi da ngay baalu wala. ba aw ma lu may baalu parce que tooñu ma suñu mënee ñu jaaree fa xoolal ñu ñu yàq sama carrière amul problème man maa ngi ànd ak yàlla parce que lii tooñ la ñun du ñu ay Gris Bordeaux deux mois lañ ko jàppal. mun a dafa jege bëriwul. ñun ñu jàppal ñu si cinq na cinq ngeen di bëri ñu ne nouvelle nouvelle ordre wàcc na ñëpp xam ne bëri amatul ñu jékki-jékki toog ñu ne ñu suba ngeen di bëri deux jours ñu ne ñu suba ngeen di bëri benn fam sax laa mën a ndax la jeudi bi bokkul nañ bàyyi nañ arrêté li ñuy def ñun ay doomu jaambur lañ ñun ay ñun ay xale lañ. sànq ñu fenuñu dañuy daan doole pour dem xam nga dimbali ñu nekk suñu ginnaaw dimbali suñu waajur. day wéy di des si combat day wéy di des si làmb ji wala. waaw déggoo lu ma la wax. sa si ñoom la dépendre. ñoom suñu ma bëggee génne làmb ji ma génn làmb ji. suñu ma bëggee duggoo si làmb ma dugg si làmb ji. dama la ne chaque jour nga gis fi nit def fi lu ne weng ay nit taxaw di koy ñaanal intervention. am na wala amul. te ñun suñu cas mal attendi la. ñun suñu cas du cas. dañu waxante dëgg wante manager ak e CNG ñooy nekk tout le temps. ñu ne non dañ leen di appui xam dañ leen di defal li dañ sambalaa dafa pare woon pour bëre dégg naa mu koy wax ratatati di wax ay mënoon naa ñëw xam nga ñëw bëre si sambalaa pare woon pour bëre sambalaa déggoo lu ma la amul fitu jàkkaarloog man wax bi moo fi dama waxoon du ma wax dafa ko ma wax yëfu góor la yëfu jantal la ko dañuy waxtaan dañuy waxtaan te sambalaa moo la gënoon xam ni am na combat sambalaa nee na moo moo dàq bëri si làmb ji na jël. yaa ngi dégg moom moo ma ëpp doole na jël na def wante dem si làmba ja di bàkku jóge si làmba di bàkku ko gën te man góor du ma yab góor musuma yab te su ma bëggee yab wala mu mu may yab amul moo tax moo moo ma yab te suñu jëflante woon maa moom yàlla nag mooy may ndam te dina xam ne der dëgg la ko jëflante te dana xam ne carrément góor dëgg hmm. donc du métti bu baaxee saf voilà dama bëgg mu xam loolu quoi kon Blindé kontaan naa ci yow. di nuyuwaat ñëpp di jégaluwaat ñëpp di wax su ma fi waxee lenn loo xamante ne lu ñaaw la rek du si man quoi comprendre nga su ma fi waxee tamit lu rafet tamit du si man yàlla la comprendre nga est-ce que parce que nit parfait wul te matul comprendre di jégaluwaat ñëpp nag di wax lii dafa metti rek looloo tax ñu waxee nii boobu ba léegi dafa ñu sorti te comprendre nga te ay nit ñu ngi woo dafa defal ñu def ak ñoom sorti comprendre di ñaanaat yàlla Sénégal am jàmm. comprendre di ñaanal ñëpp jàmm wante CNG dañ xoolaat seen toogaay ñoom moomuñu làmb ji dañ leen fa teg te ñun ñoom moom làmb ji ñoom ñoo bokku liggéey comprendre lañ am na décision yoo xam ne suñ koy jël dañuy xalaat su nekkoon sama doom wala su nekkoon sama mbër wala su nekkoon sama waa kër wala sama koñ te duñ jékki jël ay décision yoo xamante teg ko si ay ay xale yoo xamante ni loolu lañ yaakaar comprendre dañuy xam ni carrément daal dañ ko sekk ak ay nit comprendre nga ça voilà CNG ñu fa ëpp doole làmb ñu si ëpp doole du CNG du manager leader yi la mbër yi la ñun ñooy ngemb ñun ñooy dóorante ñun ñooy ñooy ñooy def yenn yi ñun ñooy wuti licence ba manager bi mën a am licence làmb su am woon làmb amatul benn mbër bëreetul xanaa CNG ak ak ak ak ak manager yi ñooy bëri seen biir kon nañ bàyyi yi ñuy def ñu arrêté li ñuy def daa am loo xamante ni rafetul quoi dara jaru ko si àdduna te lépp loo gis ne waxtaan li mu mën a defar ah ah, ah yàqal nit ki yaa ngi dégg mënu ko defar comprendre nga man nag dama ànd ak yàlla doyloo yàlla ku si wax baax na ku si waxul baax na comprendre man sama wërsëg si àdduna kenn mënu ma ko teree jël su ma ne yàlla ne fii nga yem si lam fii nga yem si lam te wallaay azim laa lay waatan yaa ngi dégg est-ce que si ñoom la dépendre suñu bëggee génn ma si lam ñu ma si lam suñu bëggee dugal si lam ñu dugal ma si lam te ma xamal la benn affaire Zambala li muy wax ni dara amu si Zambala suñu ñëw woon guddi ne ma tak tak Zambala mu si buntu kër nee na nga ñëw ngeen bëri noonu laay jógee ñëw bëreek moom te li ma ko bëgg a def laa koy def te mu du si mun dara voilà. kontaan naa